bi ci des nag mooy bu fekkee ne kooka dafa jihaat ak bakkanam farlu ci yoonu yàlla dama dem ba nga xamee ne dara yu neexul yàlla yonent bi neexatu ko lépp nag lu neex yàlla yonent bi neex ci moom lool loolu moom martaba la bu kawe kawe boo xam ne yombuta àgg dañuy góorgóorlu ndànk ba bañ cee àgg loolu nag ku mel noonu neex ga santaane yàlla yi neexee ci moom noona tewu ko doon ak sellal dana am nag màndarga mu koy teqaleeg ki nga njëkk a wax ndax moom la yàlla jiital lay jiital tekke la ci topp tekke la ci topp leen lu ne fa ko yoon teg rek ak daraja jam ko jox foofu la koy teg jox ko daraja jooja ku jëkk ki nag moom la ba kanam jékki-jékki bëgg mën naa am mu féete kaw mën naa am mu féete suuf la muy doon doon digal daal moom mën naa am nekkul ca daraja bu kawe ba te moom nag neex gam neex ca moom rek tax mu sëgg ca topp aw neex itam kon nag nga seetlu ne saa yu ne waminhu bokk na ci ngistal léeg-léeg loolee muy wax ngistal la ci ñëpp ñëpp ak ñàkk sellal la goo xam ne ku ko def rek mu yàq sa jëf léeg-léeg nag muy ngistal maanaam ñàkk sellal goo xam ne ca nit yàlla yu mag ya lay doon ngistal ñàkk sellal waaye nitu kese rek moom ak sellal lay doon ci moom wax na nag yaar yoo xam ne bu ci nekk ngistal la ci nit yàlla yu mag yi ndax ñoom seen yitte war naa weesu foofa waaye du ngistal ci niti kese yi ak sellal lay doon ci ñoom bu njëkk bi mooy jëf ndax yàlla boole ko ci wàll yi ñaareel bi mooy bin wax léegi di jëf loo xam ne yoon santaane na ko waaye daa fekk nag mu neex ci bakkanam boole ca mu xër ci nag ngir da ca am bànneexu bakkan loolu bu dee ci nit yàlla yu mag yi ak ñàkk sellal la ngistal la waaye nag bu dee ci nit kese yi moom du ngistal ak sellal bu wér la dum ci tegit mooy aw talabil wusooli wala sàkkoo àgg ci yàlla boobu itam ci yooyu la bokk jëf di sonn ngir àgg ci yàlla bu dee ci nit yàlla yi moom ngistal lay doon ci ñoom ndax dañoo war a xam ne yàlla ku màgg la ñu war koo jaamu ngir màggal ko rekk waaye wala su ko jaamu ngir dara du ngir mu def la waliyu du ngir mu àggale la ci boppam du ngir mu dugal la àjjana du ngir mu musal la ci sawara moom daal ñoom dañuy jàpp ne dañoo war a jaamu yàlla ngir dafa yeyoo jaamu rekk képp ko jaamu nag ngir lu dul loolu rekk ñu jàpp ne ak ñàkk sellal la ngistal la ñoom dañuy wax ne ilzamil ubudiyata wala tatlub biha alwusula ilayhi fa innahu ida araadaka lahu aw salaka ilayhi wa ayu amalin xalusa lak xata tatluba bihi alwusula ilayhi dañuy wax ne da ngay taqoo jéem a matale ak njaam waaye bul ci bëgg nag yàlla àggale la ci boppam ndax moom bu la naree àggale ci boppam àggale la ci boppam te it doomi aadama ni mu matadee lu mu mën a jëfee jëf ji sell ji ko àggale ci yàlla ku ñu wax abul xabbaas nee na lan yasilal waliyu ilallahi taala xatta tanqatiha xanhu shahwatul wusuul waliyu day du àgg mukk ci yàlla lu may mu dem a dem ba amatul genn bëgg ci àgg koo xam ne daal daa xam ne yàlla yelloo naa jaamu rek mu di ko jaamu waaye bëgg àgg taxul muy jaamu kooka la yàllay àggale ca boppam wastidhaa i ta'zimi xalqin ak sàkku màggaluk mbindeef benn goog boo xam nag moom ngistal la ci ñëpp ñëpp jëf ngir doomi aadama yi màggal la mbaa ngir ñu jox la seeni alal wala ngir ñu liggéeyal la loo bëgg ñu nekk ca loolu moom ngistal la ci ñëpp ñëpp moom aw li xarqil aadati wala ngir xotti baax min rabbina tukkee ci sunu boroom dil fadli kay boroom ganeel bil ibadati ca jaamu yàlla ga bii moom daa bokk ci yi nga xam ne bu dee ci nit yàlla yi muy ngistal ak ñàkk sellal te bu dee ci nitu kese moom bu ngistal ak sellal la maanaam mooy muy jaamu yàlla ngir yàlla may ko ay xar baax mel na yàlla may ko muy dox ci kaw ndox mi wala muy naaw ci jaww ji wala ngir yàlla xamal ko xeeti kumpa yi loolu lépp mel na ne kon bu dee ci nit yàlla yi moom la tax koo koy jëf du ngir yàlla yi kese te ñoom jëpp-jëf joo xam ne yàlla yi kese taxul rek dañ koy tuddee ak ñàkk sellal ngistal waaye nag jàppal ne boobu bu dee ci nitu kese rek moom du ngistal kon nag saye boo teel a takk rek ne nit yi tasawu fii maanaam nit yàlla yu mag yi lañu jàpp muy sellal mooy rek jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne jëmmam ji rek a tax nga xam ne moom bu digle wutoon sax ku ko jaamu it ñoom ñu jaamu ko ndax xam ne day ko yelloo jaamu waaye ñoom jaamu ngir am ak pay wala jaamu ngir àjjana mbaa sawara jaamu daal ngir lu bokkut ak màggal jëmm yàlla ji ñoom ngistal lañ koy jàppe ak ñàkk sellal lañ koy jàppe bu dee nag ci shariha maanaam boroom xam-xam yi topp wàllu zahir moom ni alxaraaf yi waxe rekk lañuy waxe te loolu mooy dëgg-dëgg ngistal moo di iqaaul qurbati li qasdin naas def ak jaamu yàlla maanaam jëfi alaxira te nit ñi tax loolu rek ñoom la ñuy jàppee ngistal nga xam ne su fekkee jëf ci ajuwut ci alaxira mbiri àdduna rek la ki mu fonk ci àdduna fa muy dëkke mbaa la muy war mbaa la muy sol te nit ñi rekk tax jàpp ni su ko defut daañu ko teg ay baat lu ko tee def ni ñëpp yi def lu mel noonu moom du ko tudde ngistal ndax ajuwul ci jëfi alaxira ba tey bu jëfoon jëfi alaxira bëggaale ci njariñul àdduna waaye geesuwu ca nit ñi rekk niki muy aji màkk yéenewaale nag yóbbaale fa marchandise jaayaale ko am ca njariñ bu dee mooma ni alxaraaf yi waxe loolu ak sellal la ñi ëpp ci ñu toppatoo shariha it loolu la ñuy wax li fekk geesuwul nit ñi rek ci jëfi àlaxira ja leneen njariñ lam cay sàkku du ko tee doon ak sellal niki muy aji màkka ngir bu demee jaay fa jënd fa amaali bénéfice wala muy xare ji ci yoonu yàlla ngir bu demee am ca alal ja bu ñu fa séddale alal mbaa mu dem di siyaare ji waaju baax te jublu ca bu demee am soxla si àdduna sum ko tawataale mu ñaanal ko ca yooyu day yu bare bare bare bari yoo xam ne daanaka xeeti jaamu yàlla yu bare bare bari kooka dana koy def te boo ko dee seet am na leneen lu ci làqu loo xam ne jëluwul ci yàlla daa dellu ci boppam mel ni sax woor bu ñu nee woor day taxaw wér muy woor nag ngir yàlla boolewaale ci tam bëggaale ak wér loolu kon làq na ci lu bokkut ak yàlla wala niki muy màggal yu tuubaa yóbbaale marchandise moo xam ne bu demee da ko fay jaay wala muy màggali Tuubaa ngir bu demee tase faak mbokkam moo xam ne da ko gëj a gis bu yàgg a yàgg wala sëñ bi santaane ab liggéey mu dem nag yóbbaale xeeti jumtukaay yi nga xam ne ña fay liggéey daañu koy soxla bu demee man ko faa jaay nga boolewaale ci nag jàng dara ci alquran mbaa dara ci hadis mbaa dara ci ñaani gaa yu baax yi te ngir jaamu yàlla kese kese taxut da caa ambaale am njariñal àdduna mbaa mucc ci loo xam dañoo wax ne ku jàng loola mucc ca yu mel ni yépp boo ko dee seet yàlla yi kese kese taxut am na leneen lu tax jàmm di ko def te muy dellu ca boppam ku mel ni alxaraaf yi ak mboolem ñi toppatoo shariha rek noonu dañuy jàpp ne lii ak sellal la du ngistal ayut te it te loolu nag mooy gis-gis bi yaatu ñëpp xaj ci ku mel ni alxazaali yi moom foofu dafiy teqale wuuteeg alxaraaf yi moom day wax ne su fekkee ne loolee mu ci yéenewaale ci njëriñ bu ko amee it da koy jubloo delloo ci yàlla ba kanam ba àdduna ba leneen taxut loola kon ayut ak sellal la waaye nag bu fekkee loolee mu ci yéenewaale ci njëriñ luy dellu ca boppam jubluwu ca am ci ngërëmul yàlla day dellu ca bakkanam rek ba àdduna mu ngi demee noonu rek kon moom bu dee ci alxasaali yi ngistal gu aay lay doon foofu la alxaraafi ak alxasaali di wutee alxasaali yi moom bu dee xamle ngistal ñàkk sellal day wax ne mooy iraadatu nafaxi dunia bi xamalil axira sawaun aradathu min allahi aw min annaas illa in qasada bi dunia alxuddata xala taaxati fala takunu riyaan niki jëf ja muy jëf da caa bëgg alal ànd ak yéene gam ci yéene wàllu yàlla waaye boo amee alal ja da koy topp yàlla mbaa dimbalee ko ña nga xam ne ñoo ca loru mbaa téye ko boppam ba du jotee nit ñi dara dana mën a dem ñu dem du leen tooñ duñ ko tooñ yéene ju mel ni bu ci amee alxasaal yi ne kon loolu day doonatul ngistal ndax yéene ji moo koy soppi ak sellal topp yàlla gu sell sell alxaraaf yi ne moom day wax ne moom daal jëf ja lu mu doon doon jëf yi àllaaxira kooku jublu ca njariñal àdduna waaye njariñ la daa bëgg mu bàyyi ko ci yàlla ñëw ci moom rek géesuwu ca nit ña maanaam bëggul njëriñ su boobaa ak sellal la moo xam da caa jublu nag bu amee njariñ la jëmale ko ci ngërëmul yàlla moo xam da moo xam da caa jublu bu amee njariñ la jëmale ko ci wàllu bakkanam ak addunaam du ca dara bu dee ci gis-gisu alxaraaf yi moom ak ñi ëpp ci ñi jàngale rek shariha ci zahir dañuy jàpp ne jublu nit ñi rek mooy tax loola doon ngistal waaye li feek jubluwu ca nit ñi geesuwu ca nit ñi rek gistal amatu ca alxasaali mi wax nag ne jëf ja muy jëf te yàllay kese taxut da caa bëggaale njëriñal àdduna niki jàng dara ci alxuraan jubluwaale ca am wërsëg mbaa mucc ak yu demee noonu ndegam nee na loolu moom bu fekkee lépp da ko bëgg a delloo ci yàlla dara aayu ca day daal di wax nag bu fekkee ne jubluwoo koo delloo ci yàlla da ko jubloo delloo rekk ci bakkanam ak addunaam ak yu demee noonu su boobaa day wax ne dañuy seet ba xam dëgg-dëgg lu ko taxa jublu ca jëf ja bu fekkee ne wàllu yàlla ga wàllu àllaaxira ga mu ëpp doole ñu fay ko ca tuyaaba bu fekkee ne wàllu adduna ga moo ëpp doole dañ ko ci buggal waaye kenn du ko ci fay tuyaaba su fekkee ne yaar yëpp yemoo maanaam juglug yàlla ga ak juglug wàllu adduna ga ñoo yemoo képp képp képp kon day dem ak loxoy kese maanaam kenn du ko teg benn bàkkaar ci loola waaye itam kenn du ko ci fay jenn tuyaaba day wax ne in xalaba baaxitul axirati utiyib wa in xalaba baaxitu dunia xooqib wa in tasaawayaa laa lahoo wala alay ci misaal bu sëriñ bi wootee ab liggéey boo xam ne dañ koy def ngir yàlla mu ne moom nag day dem ci liggéey ba te yóbbaale jumtukaay yi nga xam ne waa liggéey ba daañu koy soxla di leen ko jaay bëgg na tuyaaba yàlla ci liggéey ba mu fay liggéey waaye itam gis nga ne bëgg na njëriñal àdduna ci loolee mu fay jaay ñu seet su fekkee ne bëggam bëgg tuyaaba yàlla moo ko ëppal doole ba su fekkoon ne amul lu mu yóbbu di ko fa jaay it du ko tee dem kon tuyaaba lay am waaye bu fekkoon ne la mu yóbbaal di ko fa jaay rek ci dëgg-dëgg kat moo ko gën a xiirtal ci dem gi nga xam ne bu amutoon loolu di ko fa yóbbu day toog kon du dem ak ñàkk a sellal la def goo xam ne gu aaya aay la su fekkoon ne nag yaar yëpp a yemoo ci xolam na mu bëggee tuyaaba ji ci liggéey ba ak na mu bëggee njariñ la ca lam fay jaay ñoo yemoo képp képp su boobaa du am tuyaaba waaye duy wax ne itam sellulut di ko ca teg benn bàkkaar waaye nag boo seetloo wax yi ak wuute yépp rek day dellu ci ni lislaam yaatale nga xam ne kenn ku ne fa sa daraja tollu rek mën nga faa toll te du wàññi dara nit yàlla nit yàlla yi ñoom lañ jàppee sellal mooy lañ la waxoon maanaam dañuy jëf rek ngir yàlla luñ ca rax dara dara dara lu ca bokkut du ngir bëgg àjjana du ngir ragal sawara rawante ne nag njariñal àdduna mbaa lu koy nuru ñoom daal dañuy jàpp ne yàlla ku yelloo ñu jëfal ko la ñu koy jëfal rek nga xam ne su digli wutoon sax ku ko jaamu mbaa ku ko jëfalit du tee ñoom ñu xam ne ak màggam ak sellam yeeyoo nañu jaamu ko jëfal ko loolu moom mooy daraja bi gën a kawe loolu nag day faral di néew di ay benn benn yu ko meloo waaye mën nga ko misaal ci diggante sunu maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ bu mag bi nee nañu sëriñ bi mas naa rëdd aw rëdd ne ku jéggi rëdd wii fekk ma fi ma nekk dem sawara kenn ñu wute jéggi rëddoo fekk ko fa mu nekk ba sunu maam Cheikh Ibrahim Fall ñëwee laaj ñu ne ko moom day daa wax ne rëdd wii ku ko jéggi fekk ko fee mu nekk dem sawara mu daldi jéggi rëddoo fekk sëñ ba fa mu nekk ne moom bëggul àjjana ragalul sawara sëriñ bi rekk la bëgg loolu mooy misaalum benn benn yi nga xam ne jaamu ga ñuy jaamu yàlla du ngir bëgg dara du ngir ragal dara sopp rekk jëmmam ji ak xam ko xam yelloo gam yelloo ku ko jaamu rekk a tax ñuy jaamu daraja ba ci topp ci sellal mooy muy jëfe ndigal di bàyyi tere ci kaw nag yàlla daa digle tere du sax bëgg àjjana mbaa ragal sawara waaye nag bu yàlla diglewutoon terewutoon du jaamu yàlla ngir jàpp ne rek jëmam ji sell na sellu mata jaamu kooku nag ñu njëkk ña ñoo ko féete kaw ndax moom digle gi yàlla digle ak aaya gim aaye moo ko tax di topp ndigal bàyyi tere waaye bu fekkoon ne yàlla diglewut aayewut di jéem a xam ne yàlla am na daraja ju màgg ba jara jaamu mbaa jara defal dara di dakkaafu lam bëgg daraja sellal bi mujj nag mooy di jëf ndigal di bàyyi tere ngir ragal sawara ak bëgg àjjana kooku nag moo ci gën a suufe li ëpp itam ci nit ñi foofu la ñu nekk waaye ayut kenn ku nekk fa la yàlla tollu rek nga tollu fa li ëpp ci doomi aadama yi nag foofu la leen yàlla yemale dañuy gëm di jéem a jëfe ndigal di jéem a bàyyi tere ngir bëgg tuyaaba bu ëllëgee yàlla musal leen ci sawara yóbbu leen ci àjjana loolu nag lu baax a baax la waaye yaar yee ko féete kaw wa hakada niki nii la xubbu shuhurihim sopp seenu yëg bihi ca jëf ja wa huwa moom nag arriya mooy ngistal ba almaxfi yu bari buñ nëbbu faltanta bi na nga yeewu bokk na ci xeetu ngistal jëf jëf joo xam ne moom yàlla rekk tax nekk li woo ko itam ngir bëgg kenn yëg ko waaye nag ci sa xol moom bëgg nga nit ñi yëg ko xam ne jëf nga ko kooku nag ngistal la bu làqu ndax ngistal dañ koy def ñetti xaaj bu njëkk bi mooy mu jëf-jëf joo xam ne nit ñi dong dong tax nga xam ne nga xam ne dara yàlla nekku ca kooku moom àgg na ci daanaka ak bokkaale ñu tudde ko sax ashirku bokkaale moo gën a yee ci ñu wooye ko arriya ñaareel bi mooy jëf ji yàlla taxoon waaye ca biir nag la ca ak ñàkk sellal feeñ ni ki bëgg aw tagg mbaa ragal aw xas feeñ ca biir mbaa lu ko nuru kooku nag bu ko yëgee ci xolam te bañ ko ci xolam rek loola doy na du yàq jëf ja ndax li toq ci xel mi kenn du ko ko jàppee su ko nangoo nag bàyyi ko mu wéy nag loolaa koy yàq yaari ngistal yooyu ñoo fés bi nga xam ne moo làqu nag mooy bii mu wax mooy ba muy jëf-jëf ji moom yàllaa taxoon nit li ko itam ci aw làmmiñam ne jëf naa nangam waaye nag bëgg na ci xolam nit ñi yëg ne jëf na jëf sàngam kooku nag ngistal la bu làqoo làqu ba yonante bi waxan ne inna axwafa ma axaafu aleykum ashirku al asgar ak ashirku fiikum axfa min dabibi namli xala saxrati samma li ma gën a ragal ci yéen daal mooy ak bokkaale gu ndaw te moo di ngistal ñàkk sellal ngir yàlla ak it mu ne ak bokkaale gu làqoo làqu ba gën a làqu sax dox yi nu xorandoom ci kaw aw doj mën naa am ci biir sama xeet wi nit ki daal balaa dugg ci jenn jëf na ko wóor ne yàlla rekk tax mu di ko def bu duggee ba ca biir nag xelam na yar ci bëgg ca tagg mbaa ragal ca xas wala jëf na ko ba àggal xelam nekk ci nag bu ko nit ñi yëgoon day tagg ko ci mbaa naw ko ci mbaa yu demee noonu loolu bu ko naqaree ci xolam rek du ca wàññi dara ndax lépp loo xam ne rek day toq ci am xelam waaye rek naqari na ko loola kenn du ko ko jàppee du ko wàññi dara ci gàttal rek lépp loo xam ne xalaat la buy toq ci xel mi te moom ci boppam neexu ko naqari na ko rek kenn du ko ko jàppee bu dee jëf jum jëfoon itam du ci yàq dara incha allah nee nañu nag koo xam ne jëf ngir yàlla kese da koo jafe nay faral la jàng saaru qul huwallahu ahad tey bari la wax ñaan gii allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam sunu boroom maa ngi ñaan nga musal ma ci ma lay bokkaaleeg dara ba noppi tey ko maa ngi lay jéglu itam lu ma bokkaale yow te teyuma ko ñaan gi moom am na ay waxiini waxiin waaye boo ci xas jàpp rek baax na daa am ñaan yu ñëw ci addis yi yoo xam ne day amee ay nettali nettali waaye ndegam nettali yëpp wër na rek boo ci xas miin du aajoo nga di ko bàyyi di jël beneen wa minhu bokk na ci ngistal itraaqun sëngéem sëngéem mooy sëgg maxal xusuux ànd ak feeñal ragal yàlla xinda liqaahim fa taseeg nit ñi bila xudooxin ci lul ak toroxlu ci biir kii moom ngistal la ci ñëpp ñëpp maanaam bu taseeg nit ñi sëgg feeñal ak ragal yàlla goo xam ne nekkul ci moom bu doon moom dong du sëgge noonu du feeñal genn ragal yàlla gu demee noonu nit ñi tax nag mu def noonu kooku moom ngistal la ci ñëpp ñëpp wa minhu bokk na ci ngistal tarku saa yi bàyyi jëf ja dil ifaadati jadi boroomu jariñ li ajlihim ngir ñoom lii moom ngistal la boo xam ne nit mën na cee daanu fekk na ngistal la doon daw ba far ci daanu loolu mooy jëf ju baax joo xam ne yàlla doo nga tax mu di ko def waaye nag mu ne da koy bàyyi bañ koo def ndax ndax ragal ne su ko defee ñu ne day ngistal rek déedéet jëpp jëf joo xam ne moom ngir yàlla tax rek bañ ñu ne day ngistal bu mu tax mu bàyyi ko rawante na muy jëf joo xam ne ka jekk daana ko def ngir yàlla kon tey ñàkk wéet bu mu tee mu def ko te yàlla tax su ko bàyyi rek ngir bañ ñu wax loolu xamal ne kon daanu na ci ngistal te yëgu ko ci gàttal daal muy jëf ju mu baaxoo woon a jëf muy jeneen su ci amee yéene ju sell ngir yàlla na def rek ngir yàlla te it la gën mooy bum ñaaw njortu ne kenn ci doomi aadama yi dana wax ne moom mi day ngistal daa war a rafet njort rek ci mboolem jullit ñi jàpp ne kenn du wax ci moom dara lu may nag la ko taxa bàyyi jëf ja daa bëgg bàyyi ba wéet jëf ko ci wéet su fekkee ne da ko bàyyi ngir jëf ko ci wéet rek moom loolaa gën lu may nag muy xeetu farata joo xam ne defan ko ñuy gis ndax ñu roy ko ca moo gën mel ne joxe asaka goo xam ne farata la su ko mënee feeñal te du ca ngistal feeñal gaa gën ndax ñu roy ko ca ku fàtte woon fàttaliku ku tàyyee loon ci joxe asaka itam roy ci moom sawar joxe ko wa shukru ak sant listisaadat ngir sàkku ndolleen kooku daa bokk ci xeeti ngistal yi nga xam ne bu dee ci nit ñu màgg ñee màgg muy ngistal waaye bu dee ci nitu kese rek moom du ngistal mooy sant ngir bëgg yàlla dolli la xam nga suñu borom moom moo ne la in shakartum la azidannakum su ngeen santee sama xéewal ci gëm ma ak topp ma ma dolli leen kon day mel ne daa bëgg moom yàlla ku ko sant ndax mu dolli la kon nitu kese moom mën naa sant ngir sàkku ndolleen waaye nag nit yàlla yi nga xam ne dañoo jàpp ne yàlla daa màgg màggaay goo xam ne des ko war a jëfal rek ngir seet ja moom ju tedd ji ñooñ ñoom sant ngir sàkku ndolleen ngistal lañ koy jàppe ak ñàkk sellal lañ koy jàppe ndax ñoom ci seen gis-gis kooku santut yàlla ngir sant dafa sant ngir bëgg ndolleen loolu nag ca dëgg-dëgg du cant gañ taamu tumma dawaa u zeyni topp saafaras ji li yaar an taalama moo di nga xam ne an naka lay mbir biyadi yi nekk na ci loxoom moom yàlla kulul umóor yi mboole mbir yi fi zamani ci jamono wal xalqu te mindeef laa yan faamu du jariñ nafsahoo boppam layaa dan dara fa kayfa xayrahoo naka lay jariñe ku bokkut ak moom idan kon minal ibaadi ci jaami yàlla yi dagam xam leen nag ngistal ak ndéggatal ndéggatal waxoon nañ ko mooy jëf lu baax ba noppi nettali ko ndax bëgg ku la ci yéem mbaa ku la ca tagg mbaa lu mel noonu li saafar yaar yi moom nee na mooy nga xam ne rek yàlla dong nga mat a jëfal moom rek mat a geestu ndax mbir yëpp moo ko yore mooy def mooy dindi ku bokkut ak moom mënta defal boppam bay mën a defal keneen mbindeef mënta jariñ boppam rawante na muy jariñ keneen bu xasee xam ne nag lépp ci yàlla la nekk kon mu daldi war a sellal léppam jëm ci yàlla bu mu def lu may ngir yàlla bu mu bàyyi itam dara lu may ngir yàlla tummal waayidu topp tëkku ba fii ma ci ñoom ñaar yaa saax yu sama àndaale